Euh, ci bi ñuy wax lycée Serigne Ahmadou Ndak Seck nekk ci Thiès euh, quartier R100 euh, yàlla def man mi may proviseur bi ñu gën ma xamee ci maam Maxeet Guèye wala Guèye Maxeet may di professeur boo xamante ni sama spécialité mooy physique chimie Euh, ma daal di jaar ci lycée bi nga xamante ni biñ ko ubbee en 2002 mun naa ni bokk naa ci professeur yi ko ubbi ndax boobu maa ngi nekkoon lycée Malick Sy waaye man sama bopp personnellement man maa demande à proviseur à l'époque ni ko damay dem euh, lycée Amary ak Seck Euh, lu waraloon nag ma defoon choix boobu def di woon à l'époque un lycée d'excellence mais à vocation purement scientifique vraiment avec euh, euh, lu jafe ci lycée muy des salles spécialisées douze salles spécialisées équipées dans les normes européennes donc muy sciences physiques laboratoire yi muy science de la vie et de la terre laboratoire yi waaye aussi muy département de géographie nga xamante ni euh, géographie en réalité euh, dans certains pays euh, si faculté des sciences la nekk parce que c'est une matière scientifique kon bi ñu koy équiper bi ñuy équiper fii le département de géographie dañ ko équiper dans les normes européennes vraiment kon mu doon matériel boo xamante ni des centaines de million man mi personnellement ma réceptionné loolu ci sama département muy science physique yàlla def ma formé la première cohorte de bachelier euh, en 2005 vraiment mu doon élèves yu xarañ euh, yi avec des résultats fa tabarakallah extraordinaire euh, mais en 2006 euh, bi lycée technique ubbee aussi ah tombeek euh, sama kër yegg fële sa sag ba ma ne naa naa jege ji lycée technique euh, waaye beneen expérience la woon parce que maa ngi jógee enseignement général war a expérimenter enseignement technique et formation professionnelle waaye nag du point de vue niveau d'équipement wax dëgg yàlla mun naa ni équipement bi nekkoon fii euh, moom laa fekk lycée lycée lycée technique nga nekk fi euh, waaw euh, ba ma nekkee lycée technique aussi def huit ans ndax en tout pour tout j'ai pratiqué les classes pendant vingt deux ans entre lycée Djignabo lycée Malick Sy lycée Amary Ndack Seck lycée technique kon lycée technique ba ma euh, nekkee 2006 2007 ba 2014 si laay dellu si si lycée Amary ndax Seck mais en qualité de censeur des études voilà donc euh, pendant cinq ans de 2014 jusqu'en 2019 yàlla def na man mi maa téye woon lycée bi ci wàllu njàng mi euh, nekk fi woon nag ak sama frère sama grand frère mu di le proviseur Iba Samb Euh, mu doon proviseur boo xamante ni yàlla dafa defoon ñu am complicité entente boo xamante ni euh, ah jaaxaloon na ñëpp waaye euh, conviction ci école gëm-gëm boo xamante ni bëgg école ba pare nag am si xarañteef goo xamante ni ah ñu def fi lu lu lu mucc ayib si diggante juróomi at ndax ñoo fi ñëwandoo à 2019 waaye euh, en 2014 moom étant le proviseur jóge xombal euh, man en tant que censeur donc ñu collaboré collaboration bu rafet suñu jigéen aussi Fatou Bintou Naam yàqu ci dara ndax moo doon intendante bi doon première femme intendante au Sénégal waaw euh, donc tout à dinaa ñëw ci infrastructure yi nga xamante ni yu ci bëri wax dëgg yàlla euh, ñoo ko soppi def fi un investissement bu mucc ayib euh, si wàllu taar waaye ci wàllu euh, informatique en ordinateur ak ci wàllu yu bëri ba taaru lycée bi daal wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu woon nañ ko ba ku nekk amoon fierté Euh, d'appartenir à la communauté éducative du lycée Amadou Ndack Seck euh, après nag 2019 dañ ma nommé proviseur ma dem lycée Ababacar Sy de Tivaouane expérience bi ma am fii moom laa transposé à Tivaouane lycée Ababacar si euh, yàlla def aussi ba ma fa defee juróomi at ah def fa sama kéem kàttan la ma mën ci soppi ko soppi naa ko def naa ko Euh, ba ren ji yàlla delloo si waat ma lycée lycée Ahmadou Ndak Seck magistère euh, d'abord bu ñuy ñëw 2014 dañu fekkoon lycée bi euh, si anam yu jéggi dayoo ndax su ma jëlee patrimoine informatique bi ñu ne la sept ordinateur moo amoon ci lycée bi administration ak pour les élèves compris Euh, donc pour un lycée qui faisait 3800 élèves à l'époque donc xam nga ni boo jëlee 3500 élèves pour sept ordinateur le ratio c'est un ordinateur pour 500 élèves imaginez 3800 élèves donc ça veut dire que dans ces conditions ñun dañu raté l'ère du numérique alors donc il fallait ñu jël des mesures courageuses pour pouvoir Euh, redresser la situation euh, pour pouvoir faire euh, un équipement en outil informatique hein? les mesures bokk na ci lu proviseur théorisé woon une blouse euh, scolaire par deux ans ou bien une tenue scolaire par deux ans ce qui nous a permis de d'économiser la première année donc presque six à sept millions et ensuite euh, une deuxième mesure euh, boo xamante ni dafa doon nekk ci euh, une restauration qu'on alors que amuñu woon cantine scolaire proprement parler c'est-à-dire amuñu woon approvisionnement de la part de l'État donc si bien que ça nous entre huit et neuf millions parce que da yoroon personnel boo xamante ni dafay togg Euh, pour xale yi loolu lépp mu doon charge yoo xamante ne mënul woon ak ànd ak euh, développement euh, pédagogique mënul woon ak ànd ak performance au plan pédagogique ah donc bi ñu jëlee ces mesure la mu permettre ñu ñu au moins faire des économies presque quinze millions moo waral ñu daal di vraiment def des investissements on a refait le lycée les locaux euh, modernisé ko donc salle de conférence ba qu'on appelle auditorium ñu vraiment defaraat ko équipé ko équipement boo xamante ni ba mu mel ni grand théâtre euh, vraiment euh, de Dakar euh, et patrimoine informatique bi on l'a fait passer de sept ordinateurs à cent vingt neuf ordinateurs connexion internet bi daanaka fépp c'était connecté Euh, personnel bi euh, boo demee salle des profs euh, ñu aménager leen salle pédagogique équipé ko en ordinateur les surveillances surveillance générale yi ñoom ñëpp équipé plus la salle multimédia et la salle d'informatique pour les la formation des élèves en informatique kon on avait deux grandes salles benn bi au niveau du bâtiment C muy salle informatique de cours Et euh, ensuite beneen bi ñu tudd ko salle multimédia équipé ko en bibliothèque numérique en ressources numériques euh, muy abriter des formations euh, mais aussi une documentation numérique hein? donc vraiment tous ces investissements là def euh, ñu def ko euh, en 2000 entre 2014 et 2019 euh, Dieu a fait que en 2019 le proviseur Euh, Iba Samb et parti à la retraite man ñu nomee ma proviseur euh, lycée euh, Ababacar Sy cinq ans après bi ma retourné nag ah li yàqu bëri na quand même du ma ni nag lépp yàqu na waaye li yàqu bëri na du ma ni def defu ki fi ki ñu wootu woon defu fi dara def na ak fa kàttanam toll waaye li yàqu Euh, wax dëgg yàlla euh, waaw metti woon na ci gis ba jéggi dayoo waaye alhamdulilah euh, ndax lu ko waral rek mooy xëy na ni ñu occupé lycée bi wala jumtuwaay yi xëy na doyul de sorte que yow en tant que chef d'établissement boo amul xar xarañteef gu day nii nga mën a wuti ay partenaires wala am ay say feem euh, doo mën a jël en charge vraiment les pré toutes les préoccupations surtout ay préoccupations yu fondamentales euh, benn bi salle de l'auditorium bi wax dëgg yàlla maa ngi ñëwee fekk ñu ne ma dojo lañ ko def salle de karaté euh, wala ay troupe théâtrale yu koy occupé ak investissement ba fa nekkoon nga xamante ni moo doon fierté lycée bi c'était vraiment une salle qui abritait des conférence de haute facture euh, qui abritait des séminaires de formation mais aussi des réceptions euh, de mariage nga xamante ni gox bi ku doon def mariage donc loué woo saalu lycée euh, Amary Ndack Seck yow sa sa réception neexul kon euh, la salle non seulement daf doon contribuer si pédagogique c'est la formation des élèves mais aussi dafa doon aider à générer des ressources additionnelles euh, yu takku nag fa tabarakallahu euh, kon état de dégradation bi c'était vraiment euh, l'une des premières initiatives vraiment qu'il fallait donc euh, rétablir hein voilà donc euh, vraiment donc loolu rek sax euh, du lool sax leneen bi aussi muy difficulté bu tar muy l'accès à l'eau moom tamit fekk nañ ko fi euh, ndax ndox moom fu mu ñàkk rek déjà hygiène day poser problème de sorte que dañu fekk ay salle de toilette yoo xamante ni pendant euh, des élèves un an ferme des toilettes euh, non opérationnelles douche un an donc foog fonctionnelul parce que bu ndox amul déjà bu ndox amee déjà jafe-jafe yi am pour les toilettes imaginez bu ndox ma yeggul ci toilettes yi parce que problème de pression se posait donc euh, xale yi bu ñu waree Euh, dem toilette c'est dans les maisons aux alentours lool bu ñu ma ko waxee man j'ai un pincement de cœur donc dañuy solutionner ça le plus rapidement possible alors j'ai fait un premier investissement de à hauteur de un million euh, boo xamante ni euh, surpresseur bi dañ koy couplé ak un réservoir de stockage de cinq mille litres bu ko defee donc surpresseur bi day mën di noyyi ba pare ndox mi tey daal di mën a yegg fépp fu mu war a yegg ci euh, lycée bi kon boo demee tey ji toilette yëpp pour ndox maa nga fa ñu monter robinet fépp fu war a am robinet ba pare nag recrutement bi ñu yokk ko Euh, bu dee nettoiement salle de classe yi ñu recruter pour dolliwaat renforcer jigéen ñi ndax euh, liggéey bi metti woon na trop ci ñoom waaye toilettes yi ñu recruter aussi koo xamante ni exclusivement il va s'occuper de leur entretien donc euh, alhamdulilah léegi les choses mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi lépp a ngi dox normalement alors léegi euh, c'est un grand lycée lycée Amary Ndack Seck dafa bokk ci les plus grands lycées de l'académie euh, c'est un lycée euh, compte euh, à soixante cinq classes pédagogiques euh, pour quarante quatre classes physiques euh, effectif donc. daaw xëy na mi ngi woon ci trois mille cinq cent trois mille cinq cent et quelques euh, ren jii euh, ñoo ngi def la nouvelle situation yaakaar naa ni ak niveau d'orientation bi euh, en seconde dafa mel ni effectif yi ren jii dafa wàññeeku si bien que trois mille yi xam naa dina teg ak tuuti. on est en train de de de de faire le tour des classes pour voir pour stabiliser euh, élaguer les listes ceux qui sont partis on aura une idée beaucoup plus précise certainement euh, à la fin de cette semaine-ci voilà donc euh, waaw xam na nag li yi taille yi dimension yi bokkul ndax yaa kon euh, ils sont catégorisés catégorie bu si gën a rëy mooy catégorie 7 donc c'est un lycée de catégorie 7 euh, moom ak lycée Malick si ak lycée euh, Demba Diop de Mbour ak lycée Ababacar si voilà donc pour ne citer que ces quatre comme des lycées de catégorie 7 waaye de catégorie 7 mais aussi mu doon lycée yu ci gën a rëy sax parmi les lycées de catégorie 7 voilà kon. Euh, effectif bi aussi donne effectif bu pléthorique parce que nous avons euh, cent trente cinq à cent quarante professeurs euh, plus donc plus de quarante surveillants donc un personnel qui tourne autour de cent quatre vingt cent quatre vingt et quelques vous voyez hein ce que cela fait donc mais alhamdulilah donc euh, jafe na gérer jafewul gérer ndax li am solo rek mooy euh, enseignement apprentissage yi tegu ci yoon euh, prof bu war a jàngalee say jumtuwaay ñu jox la ko vraiment xale yi aussi ku am cours nga am sa emploi du temps xam sa classe boo demee pour jànge fekk fa professeur ya jumtuwaay yawar Euh, incha euh, ñu def ñu ñu jox leen ko yàlla dimbali nañu côté boobu yëpp saafaral nañ ko euh, donc ba enseignement apprentissage yi donc mi ngi déroulé wu normalement certainement boo defee reportage dem sur le terrain donc dinga gis ni xale yaa ngi ci xale yaa ngi ci classe yi ah. daaw bu la gën a marqué nga nekk censeur nekk proviseur bu la gën a marqué. pas diggante daaw ak ren ndax euh, xëy na diggante 2014 bi ma doonee censeur ak 2024 euh, ma doon proviseur donc si diggante bi nee naa la depuis 2019 def naa fi cinq ans de provisorat mm-hmm. xëy na kay euh, bi ma doonee censeur fii cinq ans yi Euh, may li ma wax léegi ni ko dama dama la nekk dama nekkoon nag un proviseur boo xamante ni yàlla dafa defoon ñu am benn complicé boo xamante ni benn entente par rapport ak liggéey bi xarañteef bi gëm-gëm éducation vraiment euh, ñu bokk nag jikko si euh, jub jub jubal jubbanti mooy concept ba xew léegi ñun dañoo dañoo évoluer noonu loolu la ñu mas a xam si loolu la ñu mas a euh, tàggate waaw donc euh, si bien que euh, en matière de mobilisation de ressources financières vraiment on avait de ces de ces astuces de ces femmes yoo xamante ni mais macha allah ah tout le monde les gens se posaient des question mais ñii est-ce que euh, comment ils font pour avoir des ressources financières waaye lépp organisation rek ak de bonnes initiatives xam ni. Euh, service lañ la dénk yow luy doxal service bi moom mooy sa sa priorité mooy sa préoccupation et non lu lay lu lay luy doxal sa poche yow. loolu voilà donc projet yi mooy d'abord euh, li yàq ko ñu defar ko delloo lycée bi fa mu nekkoon ci ci taar ci organisation ci méthode ah. moo tax euh, ñu euh, tout à ndox mi ma wax la investissement buñ ñu ko def parce que loolu moom moo doon farata faratay faratay donc euh, yàlla defal nañ sutura ba mën naa ni féete na boor ah auditorium ba yàlla defal nañu aussi ñu def fa investissement donc pour le moment valeur cinq millions euh, ay chaises yu baqee ne fa tabarakallahu euh, def fa aussi euh, wutal matériel de sonorisation boo xamante ni tey jii xale yi muy conférence au niveau de l'auditorium wala ci cours bi bu mu mën a doon activité bu mu mën a doon scolaire soxlaatul ñuy louer ji sonorisation ndax am nañ ko bu ñu bëggee def conférence soxlaatul ñuy dem feneen wuti salle de conférence feneen ndax am nañ ko cérémonie scolaire bu mu mën a doon soxlaatul ñuy dem feneen di ko jéggaan ni mi ngi fi vous voyez kon loolu ay investissement la li ci des muy hygiène bi wax naa ko on a on a repris tous les blocs euh, sanitaires donc euh, alhamdulilah euh, en renforçant le personnel en charge Euh, vraiment euh, bu dee aussi l'insalubrité aussi euh, suñu kéem kàttan ñoo koy def si nettoiement bi gis nga lycée bi boo ñëwee fa tabarakallah samedi bi rek déjà avec le daayira Murit ñoo ne ñoom vraiment dañuy ivo s'investir def mobilisation bu bu bu bu mucc ayib wax dëgg yàlla donc setal gën a setal vraiment donc lycée bi mais ma di leen ni félicité waaye di leen ñaax di ñaax élèves yëpp ñu gën a góorgóorlu ci wàllu set muy classe yi muy couloir yi muy donc bâtiment yi après mu daal di law ba ci lycée bi yëpp c'est des actions yoo xamante ni il faut les pérenniser vraiment kooku maa ngi ciy woo ñëpp nag Euh, leneen li ma ci dolli mooy le personnel en charge def nañu suñu kéem kàttan pour renforcer ko mais avec des ressources malgré des ressources très limitées xëy na ressources yooyu bun nañ ci taxaw tuuti ndax euh, ressources financières yi limitées soo déggee mën a limité maanaam par rapport ak charge yi nga xamante ni moom mooy peser sur nos épaules c'est des ressources financières très limitées maanaam doyul euh, te li ko waral nag euh, mooy ñoo ngi siy xaar état ndax ëmpul euh, kenn ni daaw dañ fi jël benn mesure euh, de réduction des inscriptions de dix mille à cinq mille xëy na du point de vue exposé des motifs ça paraissait pertinent mais fa ñu agir du woon foofu ndax bu doon allégé les poches des ménages rek am na feneen foo mënoon agir lu demee ni ki donc. les tenues scolaires nga xamante ni mënta ñàkk si lycée ni ko état jëlee en charge dans le primaire et dans l' élémentaire mënoon na ko jële en charge dans le lycée euh, kon am na fu mu wàññi fu mu féete parent bi l' inscription au baccalauréat donc mille francs état bi tey bu ko neexoon mu ne donc damay wàññi les inscriptions euh, damay euh, def euh, inscription baccalauréat gratuit boo ko defee office du bac lay ndàmp la mu perdre lu demee ni ki qu'on appelle les dépenses incompressibles maanaam ressources yu tuuti yi lycée bi am ñun si la ñuy doxalee yenn institution yu yenn structure yu mel nii inspection médicale des écoles wala KOSP wala le sport scolaire wala l'inspection d'académie kii ñoo ngi koy verser IME Euh, euh, minimum trois cent mille KOSP war ko verser minimum trois cent mille war a verser donc euh, inspection d'académie pour les phares euh, minimum neuf cent mille war a verser sport scolaire minimum cent cinquante mille daanaka loolu muy donc presque deux millions foo koy jëlee si les maigres ressources yi nga am yow nga war a yor personnel en charge euh, pédagogie ñëwagul vous voyez donc di lépp mooy mesure bi état jël nga xamante ni incidence financière bi pour le lycée Amary Ndack Seck dafa indi perte en recette sèche de 17 millions et demi minimum 17 millions et demi boo ko génnee si gafa service bu yor personnel service boo xamante ni ay charge bu yokkul wàññeekuwul waa léegi ndax te nga ne ko doxalal nu muy def li fi nekk mooy soit da nga naan léegi man sama yoon nekku ci ah damay euh, li ma mën laay def mooy waral ñu dund dañu lycée bi dund daaw xam naa euh, mon collègue sortant Euh, dafa dem ba mënul rek mu daal di seetaan parce que bu fekkee da nga war a euh, entretener ay toilettes personnel ba ñoom may ñu la ko amul benn population communauté buy investir ni euh, man maay jël en charge wala damay liggéeyal di bi ci maani franc lu bay koo ci mën a ku la liggéeyal da nga koy fay vraiment amul amul dara loo xamante ni donc dañ la koy defal gratuitement rien n'est gratuit voilà léegi yow boo amul loo loo fayee nga am looy réparer wala nga am loo war a entretenir loo doxal euh, bon tu les bras est solution ñun xëy na wuñu noonu donc yàlla def na ñu am ay partenaires yoo xamante ni euh, euh, ñoo ñuy jàppale en matière donc d'équipement Euh, yu ci bëri ñooñu ci ñooñu ciy accompagner waaw waaw bu ko defee ah euh, suñuy partenaire su ma jëlee lu mel ni euh, global business confection nga xamante ni tey jii mun naa ni lii ma def ci ndox mi moom moo ko préfinancé euh, waxuma nag euh, daf ñu ko may su ma nee préfinancé maanaam lycée bi day am ay problème yu tara tara tar yoo xamante ni boo ko réglé wul école mënta ubbi parce que dara mënta dox ah comprendre nga léegi nag yow say relation si tu es crédible mun nga am ay partenaires yoo xamante ni yi nga bëgg moom la lay donc defal mooy jël xaalisam accompagner la léegi nag yow bu ko defee ngay euh, rembourser ndànk-ndànk kon du yeme ni ki investissement pour régler circonscrire définitivement le problème de l'eau donc ñoom ñoo ko ñooñu ko c'est grâce à eux boo jëlee aussi auditorium lañu fa def ci investissement euh, nga xamante ni il fallait refaire euh, les chaises il fallait la sonorisation et ak leneen ak leneen loolu lépp c'est grâce à eux ouvrière ñoom la ñoom ñoo tax ñu réussir ko et dama citer rek un partenaire euh, du lycée xëy na am na ñeneen partenaires yoo xamante ni manifesté guñu euh, en fait ñoo ngi ci yoon bi sax euh, comme damay doog a yegg si waaye ñoom lañ ma ko defalee Tiwaawan laa bëgg ñu defalee mu ko fii muy Horizon Sahel Sénégal nga xamante ni wàllu infirmerie ñoom ñoo ma accompagner woon ba ma ref aménager infirmerie ñu def équipe équipé ko intégralement ci wàllu bibliothèque ñoom ñoo ko équipé intégralement euh, si wàllu aussi salle de lecture et de projection pour xale yi am fu ñu mën a donc di jàngee di nafare donc ñoom ñoo ma ki ñoo ko équipé lool ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni donc euh, yeneen partenaires yoo xamante ni moom fa tabaaraka la yàlla daal baax na ma ay partenaires comme maa ngi doog a yegg si nag ah nañu dem euh, si kanam dinañu gis daal ah. waaw objectif yi daal mooy il faut que lise bi dellu fa mu nekkoon ci wàcc ci wàllu taar ci wàllu organisation vraiment waaye aussi si wàllu résultat scolaire ndax euh, xëy na en 2019 Euh, bi ñuy dem on avait toutes les dispositions pour booster euh, les performances ndax dañ ko mille jëlee 3800 ak benn donc désordre boo xamante ni euh, di def ay innovation di def ay investissement n'est-ce fi ñuy atteindre au top nag pour gën a concentrer wu ci pédagogie pour fair booster définitivement les résultats fa la proviseur demee à la retraite man ma dem Tivaouane ah mais malgré ñi fi nekk nag def nañu effort euh, ndax euh, résultat yi mu ngi euh, yaakaar naa bu bac de passé à cinquante six pour cent waaw ah yàlla mën na def aussi ñu bu ñu continuer liggéey bi pourquoi pas mën nañu atteindre soixante dix quatre vingt pour cent. ni ko lycée Malick Sy di defee donte nag euh, contexte yi bokkul ndax fii def di la banlieue entre entre entre guillemets euh, niveau de vie bokkul moo tax da ngay rencontrer pas mal de contraintes décision boo jël incidence financière lu mu tuuti tuuti nga gis parents yi ñaxtu alors que c'est ce n'est pas le cas de l'autre côté vraiment hein ensuite euh, volet social bi on trop de social bul beaucoup de social pour ne pas dire trop de social alors que xëy na de l'autre côté c'est pas le cas là on présente mille et quelques candidats au bac euh, euh, Malick Sy avec le même effectif au départ donc peut-être présente de loin Euh, euh, moins que ce que nous nous présentons, c'est-à-dire 700, 800 candidats au bac hein, pour un lycée qui compte même effectif donc, que le lycée Emerine d'Arsec. Donc, ce qui veut dire que c'est normal s'ils font 80% de taux de réussite, c'est parce que c'est une c'est pas n'importe qui d'entrer au lycée Malick Sy voilà au lycée Emerine nag nag le volet social am na vraiment lu mu soxe lu bëri sur les résultats scolaires te incha allah progressivement ñu xool ndax lañ koy donc circonscrire pour booster vraiment les hmm? ah ankay ankay am na am na am na ay tenue scolaire euh, xëy na foofu may gën a ñaax élèves yi ñu gën a góor góorlu ndax tenue scolaire mënte ñàkk lycée cent élèves boo ko yoree da nga mën a xàmmee kii et kii alors que tenue scolaire dafa doon régler un acquis boo xamante ni mooy l'équité sociale mënatoo xàmmee doomu ku am ak doomu ku ñàkk ndax uniforme bi dina nëbbu lépp waaw kon loolu erreur bu rëy la woon euh, ci état ba mu donc euh, euh, wàññee les frais d'inscription mais ñun on a maintenu les frais d'inscription à 5000 waaye nag avec après tenue scolaire c'est-à-dire un effort supplémentaire pour l'achat de la tenue scolaire Euh, fa tabaarakallaa ñoo ngi si xëy na li may ñaax élèves yi rek mooy euh, il faut que ñu góor góorlu ci inscription yi parce que à l'heure j'ai parlé parle de trois de trois mille élèves euh, voire trois mille cinq cent actuellement booy xool le niveau d'inscription on est à même pas à sept cent élèves on est à six cent et quelques élèves inscrits bi école ubbee ba léegi waaw léegi ressources financières yi ñooy doxal école bi donc yow da ngay obligé di lepp say partenaire pour mën a jënd looy looy doxal école bi ah ay bale eau de ay réparation par ci par là waxuma dara sax sa salaire les salaires le personnel bi ngay fay en charge yooyu le fonctionnement bi du lycée eh, chaque minute ñu ne la donc telle chose yàqu na Euh, électricité rapidement un petit euh, une petite panne mën na la dikkee donc soixante quinze mille euh, matériel informatique bi pour nga donc réhabiliter refaire le réseau pour que au moins ñu mën a démarrer la formation des élèves l'entretien c'est c'est c'est des c'est des c'est des c'est des milliers de francs pour ne pas des centaines n'est-ce pas le matériel de reprographie machine yi donc yiy tiire pour que au moins cours yi mën a fonctionner mën a démarrer mais ay nit ñu yor seen métier lañu da nga leen di fay non c'est des centaines de milliers de francs da nga leen di fay ñu réparer la say machine nga mën a fonctionner waa léegi avec quelle ressource xale yi inscrire ñu parents d'élèves yi ñoom tamit seen yoon ci école bi on dirait wala dañuy jox xale yi eh, seen frais d'inscription ñu téye def ko seen poche maa ñu donc ñu yàlla baal ñu baal ma hmm, dem kii ko sa naar ba parce que euh, dañuy ah dañuy cotiser dañuy xaw ma lan joue loterie pour xool lan la ñuy am malheureusement léeg-léeg mu dikk leen perte vous voyez donc c'est des choses comme sax euh, loom loom la ñuy dund kon li daal mooy problème mu lycée bi les élèves ne s'inscrivent pas alors léegi à partir de la semaine prochaine on sera obligé de dire que élève bu ci amul bourse élève bu ci inscrirul on ne peut pas te recevoir dans les classes on n'a pas le choix kon daal euh, waaw euh, léegi li ma wax léegi rek euh, euh, d'abord damay ñaax élèves yi ñu gën a góorgóorlu ndax nag ak le personnel professeur li mu mën mooy sa détermination ensuite ses relations fu ma xamee nit ñu baax ay partenaires yu koy jàppale donc mu wuti ko indi ko pour le le lycée mm. mais nag il faut que chacun s'y mette élèves yi nañu góorgóorlu xam ne dañu fi ñëw pour jàng mm. école publique donc Euh, li ngay dugal lu tuuti la par rapport ak li école bi di def ci yow léegi nag parent yi il faut que ñu comprendre loolu euh, que inscription c'est obligatoire il faut que ñu def ko et def ko le plus rapidement possible ndax ñoo ngi jëm ci baccalauréat fu mu ne euh, léegi vignette yi ñu commencé ko jaay vignette yi élève bu ci inscrire bu ci jëndul vignette parent ba na assumer sa responsabilité waaw il faut que loolu leer ndax baccalauréat organisation processus la baccalauréat bi l'examen en tant que tel xëy na moom mooy fin juin juillet waaye bindu bi c'est déjà présent boo bindul jëndoo ticket bi lay permettre nga defi bac donc mënuloo defi baccalauréat te loolu du proviseur moo koy moo ko décidé état la à travers la structure qu'on appelle office du baccalauréat mooy fixer ses délais moo yor ay prime kon nag ku ci inscrire jënduloo sa ticket kon appelle la coupon pour defi baccalauréat bu la fi train bi bàyyee yaa ko yóbbee sa bopp donc lii daal mooy lima amoon donc li may wax donc di ñaax élèves yi nañu gëna góor góorlu di ñaax personnel bi nañu jàpp seen lycée la bu ko defee donc lépp day baax donc salaamaaleykum wa rahmatullahi wa